asalaamaaleykum ami cher fidèles internautes yéen ñu ñuy bàyyi xel fii di Equivox TV ñu ngi leen bu baax di leen ziar ku ci nekk ci turam ak santam di am mbégte bu baax a baax di jënoog yéen ci seen chaîne leader bilee mbégte képp la ñu am tey nag ñu ngi seet si koo xam ne kenn dootu ko présenté Sénégal macha allah muy Idali tey nag moom laa seet si fas yéene waxtaan ak moom actualité waxtaan ak moom daal lu bare bari avant ñuy xuus dañ koy daal di nuyu rek ziar ko dalal ko jàmm ci bi Equivox TV Idali ñu ngi lay ziar. salaamaaleykum Bintu Rasul maa ngi lay ziar baax di la jox sa wàccuwaay eh, di seetaan ñi seetaan Vox TV yëpp ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di ziar sa caméraman di ziar képp koo xam ne rek mu leen di bégge bu baax a baax di sant yàlla di julli bi mais comme ni ma ko wax rek di ñaanal suñu mama jaaga di fi jógee yàlla xare ko ajana ci barke Seydina Muhammad yeesal bàmmeelam ak képp ku mu fa fekk ci biir suuf ak rawat na Papa Thione soxna moom mi suñu sœur suñu lépp saa su ne rek nee naa la fii ba quarantième jour bi incha allah ci kattan yàlla lépp lu ñuy def rek dañ ci jiital suñu Mama Diaga di ko ñaanal bu baax a baax a baax tey gis nga may bi ma sol sax rendre hommage laa ci def suñu Mama Diaga incha allah mosuma sol mayo ba bind ci dara mais tey laa ko mos a def à sama yaay ak Mama Diaga yàlla xaral ko àjjana képp mu fekk ci barke Seydina Mohamed. Ida li ñu dugg ci li nga xam ne rek moom mooy actualité ku ne xam na ni euh, décès Mama Diaga bi yaakaar naa ni semaine bi mu gaañoo lépp moom la ñuy euh, waxtaanee euh, ñu koy ñaanal yàlla suñu borom xaaree ko àjjanay fiir ndaw si ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu gis démb Wally Seck boo xamante ni maanaam il est fort il est li nga xamante ni sax moom la sénégalais yi sax nag doon doon ko yërëmee sax gis ñu ko ginnaaw bi xamante ni rek moom premier ministre Amadou Ba ñëw na seet ko mu yëkkati fa ay kàddu euh, gis nañ ko daal mu sëree courage boobu noonu nga gis ci Wally waaw courage boobu chaque jour moom laa gis ci Wally muy bànneex muy naqar parce que man damay nekk ak moom tout le temps mm. comprendre nga euh, li ma leen jox rendez-vous sax moo tax nii mais kon heure bi këram laa nekk démb heure bi këram laa añee comprendre nga fa laa nekk ba presse Sénégal bi ñëw di jaale si ñëpp ma ànd ak ñoom jaale euh, courage boobu ma gis ci Wally bi maa Diaga gaañoo moom laa gis ci Wally bu amee bànneex ak naqar parce que ku gëm yàlla noonu ngay def bu yàlla andilee naqar nga kontaan bànneex nga kontaan te waale ku nekk xam ne nitu yàlla la nit yàlla nag yombul nitu yàlla mooy koo xam ne gëm nga yàlla pire àgg fa yàlla ak fa yàlla nag du question do nga nekk sa jàkka ja déedéet euh, ngay kennal yàlla lu baree bari te waali ko ne day kennal yàlla su ne euh, soxna si euh, nee naa la waali man image bi nii jëmmam nii boo ko xoolee da naan da naan nit la mais ci biir carrément boo ko xoolee da nga naan yàlla xol bi ko yox jox ko kenn Wally bi ma maman Gagné eh, Diago génne àdduna mhm. samedi 19h mhm. lañ déggante barke Seydina Mohamed ah, dama ko message mais bi ma tontoo damaa tuur xéwal dama ko doon defal noonu dama ko doon maanaam gëm-gëm bi du ma ci gëm-gëm bi nga xam ne yàlla moom yàlla moom la yàlla gëm te biñ ñëwaatee encore këram nit ñi di jaale si naan ko masawu dane man dama jàpp ne maa ngi ak cant laa nekk dama nekk ci ak cant loolu jaamu yàlla dëgg moo ko mën ku àgg fa yàlla dëgg moo ko mën yàlla teg la sa waajur jël ko di nga am bon naqaru xol mais dëgg-dëgg da ngay jox lépp yàlla waali saa ne croise am loolu la te moo tax yàlla di ko dimbale saa su ne di ko teg li mu koy teg muy naqar ak mettit parce que yàlla xarit ba rek lay teg li nga xam ne moo di naqar te waali nee naa ko yaay xaritu laay xaritu yàlla yow la yàlla teg nattu ak naqar te nga attan ko nag nee na dafa metti nii nii nii ci jaayir mais ci baatin waali attan na lépp te du ma sa wax moom incha allah ci kàttanu day avancé waat incha allah la vie continue loolu mooy nekk ak moom comme ni nga ko waxee euh, tout le temps yaa ngi ak moom démb këram sax nga añee naka nga ko gisee maanaam am na tuuti loo xamante ni lu lu mu wàññi ci moom la wala naka nga ko gisee daal en tout cas. waaw bien sûr boo wàññi na waaw am na wàññi ci moom baax a baax parce que waa la. Mm-hmm. même am na ko yàlla may mu gëm yàlla mais nit la am na loo xam ne yaramam attanu ko. Mm-hmm. même xol bi dina ko attan parce que yàlla xol rek lay la bëgg. Mm-hmm. li yére yëpp ay abiyaat la mais boo xoolee abiyaatu waal yi xam ne am na lu sumee ko ci moom parce que gor la gor su nekk bu la dara dalee foog ku la xool xam ne lii kat manqué na ci yow parce que dafa amul dal ci yow mais automatiquement boo waal Wally xool ay bëtam xool cëram xool kanamam nga xam ne Wally am na loo xam ne rocc nañ ko ci moom parce que gor la comprendre nga ba ma ko gisee man mënuma ko sax xool bu baax Wally mënuma ko sax fixé bu baax parce que xam naa ne sama xarit am na lu deñ ci moom tey loo xam ne diis na trop ci moom tey naam mu ngi koy woyaale di ko muñaale mais metti na trop trop trop mais du ma sa jooy du mës a wax ne um, te mbooloo bi lu ñu toog toog du mën ne du du du wane ne lii metti na ma li ko metti da koy denc mhm. ci xolam mhm. partagé ko yàlla suñu borom kooku mooy waali mhm. ku nangoo muñ la macha allah parce gëm-gëm bi sax ngay wax noonu parce que gis nañ ko li nga xamante ni moom mooy décembre bi gis nañ euh, yi nga xamante date yi nga xamante ni yëpp euh, maanaam def na ko te boobu yaayam mu ngi ci feebar mais kenn foogeew ko woon ndax boo ko gisee sur scène danga naan ki amulu ko métti. foofu laa lay waxee wax naa ko ci benn interview nee naa leen Wally li mu doon dund moom kese ak yàlla la parce que Wally moo nekk ni ko xam ne dafa am jom ba du bëgg du bañ euh, lu bëri kenn xamal ko ko loolu daf koy depuis xale. boo xoolee fi mu jaar ci carrière am toog wax na ko dara am lu ko metti wala am lu ko manqué mais daf koy reyante mais du ko wax kenn loolu moo ko dal tournée yi Gambie yëpp maa ànd ak moom tournée nationale yëpp yëpp yëpp yëpp mais da ngay xool ne li li li askan bi soxla li nga xam ne fans yi moom lañ soxla ci kaw seen dañ koy jox mais boobu mu ngi nekk ma naqar boo xam ne da koy denc ci xolam parce que waajuram mu ngi tëdd mhm. euh, feebar mais lépp loo xam ne am na ko rek dem na ko da gis deux jours bu tëggee concert pare day def lendemain bi bu dem Paris mais mhm. day ànd ak met sob mais loolu lan na mal xelu gars yi ne la maa ngi si jàmm fekk macha allah mu ngi naqar bu metti ba gars yu bëri naan disque door bi laa ak affaire yooyu mais fekk boobu danaan le rek man lu ma naqar lu metti metti dama koy partagé ak jaamu yàlla yi dama koy partagé ak yàlla mais amoon na lu ko naqari trop ça fait 15 jours lu mu am daw na dem Europe ci yaayam fa mu tëdd pour jëm mu jóg waaye lépp lu mu am def na ko ci yaayam waaye nag yàlla moo nangu yàlla moo weddi mu alhamdulilah rabbi alamin voilà a Diaga nekkoon yaayu ñëpp tey lan nga dund ak moom loo xamante ne mën nga ko partagé ak waa Equivox TV. non Mama Diaga moom loo xam ne comme yaakaar naa li ñëpp dund ak moom parce que Mama Diaga kenn dund ak moom leen loo xam ne safaan bala. Mhm. nee naa la Mama Diaga ñeent lañ mos a toog ma moom beneen bi bi soxna Momy gaañoo la yeneen yëpp ay timit la mais li may wax toujours góorgóorlu leen bu leen tooñ seen morom te leen waxtu julli juróom leen ko fonk mhm. respect seen liggéey jàppalewaal yi seen lépp la. ne ma waale jur rek laa ci moom mais yéen yéen a ma ëppale ci moom parce que li ngeen di nekk ak moom du ma nekk du ma ko nekk ak moom te loolu mooy dëgg parce que yéen liggéey te loolu mooy dëgg muy ku baax comprendre nga muy koo xam ne lépp lu mu am delloo na ko Seydina Mohamed Mama Diago foo ko fekk doo gis nopp ya doo gis lenn yaramam xanaa loxo yi nii kese muuraay du takk or du takk jamaa du takk du sol jasner te pourtant am na ko mën na waali mooy sama doom Papa Thione mooy sama borom kër soxna moo nekkoon directeur seen TV mooy sama doom sama taaw mais non foo ko fekk ñu dem ba koo xam ne da dem sangi ay néew kooku xam nga nitu yàlla pire moo ko mën te sa doom yor ay million ay milliards kon kooku nitu yàlla pire la lépp lu am joxoon na ko Seydina Muhammad moo tax bësam nii la mën a mm-hmm. fa mu génne àdduna sori na du Sénégal Europe la mais gis nga amul benn coow bu ci am boo xam ne ra ñaaw nañ ko amul. Mm-hmm. lépp a nice macha allah bañ jëbal ko suñu borom kon yaakaar naa kooku. Euh, Seydina Muhammad fay na ko borom muy suñu yaay moom mama jaaga tiituñ ci moom lenn kay la ñuy jooy kese teel dem bi ak wet bi ñuy wet la ñuy jooy mais pour mama jaaga fa mu dem ñun bir nañ ne ci kattan yàlla mu ngi lëmbee ajanay firdaws ak Papa Thione ak soxna Momy mm. barki alxuraan karim parce que koo xoolee denc bi boo xoolee ni mu demee boo xoolee seen boobu ni mu génnee àdduna ku xool asamaan ni mu doon mel nga xam ne kii kat am na lu mu dem am na lu mu demee kii kat ku baax jóge na fi tey kooku mooy yaay booy mama jaaga di ko ñaanal ci yàlla xare ko ajana ci barke Seydina Muhammad kooku mënuñu sori ci moom parce que mooy lañu am ci moom xaritu yàlla la ku bëggoon Seydina Muhammad ku mënoon def social la ci jàkka yeeg jumaa yeeg euh, morgo yeeg hôpital yeeg lépp ñu doon fay ay location ak ay ordonnance ñu tëdd feebar kenn xamul nu mu toll kooku mooy nitu yàlla mama jaaga am na solo idaal yi seede yooyu nga xamante ni euh, seede nga ko ndax nee naa lii rek lañ ko deseel ndax tamit bu génnee àdduna faaw nga waxal ko li nga xamante ni lu baax li nga xamante ni rek euh, da ko daan def waaye ñu ñëw tuuti ci jaal bi nga xamante ni rek euh, gis nañ ko si di ñëw jaale Wally Seck moom ak Maxu teel mu jur na ay polémique à travers TikTok parce que nag sénégalais yi euh, des fois seen ay commentaires euh, kenn moomu ko yaa ngi gis ñenn ñi ci naan euh, dëmm rey la jaale la et que dëj la tey yow wax yooyu noonu boo ko gisee naka nga koy jàngatee. alxamdulillah fi ma njëkk a wax mooy lan moo tax sénégalais yi. du ñëpp na en lan moo tax ñu mën a seetlu lu ñaaw di ko wax lan moo tax ñu mën a seetlu lu ñaaw di ko def Sidy Diop la jaale siwul ñu jaale si Wally Seck bari na pourquoi ñu tànn ne Sidi Diop lan moo tax mu jaale si Wally Seck def ay commentaires yu bon wala di wax lu bon euh, li yàlla la lii du soobis Sidi Diop li mu def dama ko rafetlu Mara Diop suba teel li mu def dama ko rafetlu Youssou Ndour keneen ak keneen dama ko rafetlu Wally Seck seen frère la ñu bokk benn Sénégal drapeau Sénégal vert jaune rouge ñu bokk Seydina Mohamed sallallahu mhm. amul beneen Seydina Mohamed bu ñuy topp budul benn kenn ki Wally Seck moom lay topp Sidi Diop moom lay topp Mara Diop suba moom lay topp di ko roy muy ki yàlla yónni mu yónent bi ñu bokk ñun ñëpp bu ñuy julli dañuy yónni ci julli ci yàlla comprendre nga. Mhm. yàlla boobu tey moo andi moo jël ma ma pour Diaga pourquoi Sidi Diop amul droit ñëw jaale si ko pour pourquoi Mara Diop suba teel amul droit ñëw jaale si Wally Seck parce que frère am du ñuy noonu la bu jeexee jeex na. mais est-ce tamit lii warul tax euh, maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk euh, gën a delloosiwaat seen xel comme que ku ne xam na ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ndax musique bi benn la. soxna si delloo sa xel mooy lan loo mën di def del def lu rafet bañ def lu ñaaw. mais des fois ñu gis ay ay nit yoo xamante ni dañuy faree boor bi wala fare boor bee yëkkati ay kàddu yu ñagas di ko teg ci waykat bu ne loolu itam est-ce que jotuñu bàyyi ci xel. moo tax ma wax la loolu nee naa la looy mën di def day day def lu rafet. Mm. comprendre nga maanaam yenn kàddu yi xam nga bu dee yenn kàddu yu ñaaw wala yenn jëf joo xam ne ñaaw na. Mm. comprendre nga loolu dafa jéggi soobis comprendre nga mm. mais toujours kenn ku nekk dañuy xëccal sa artiste pour bëgg mu dem ca kaw. am nga ci plein droit boo taxee benn artiste bu bu bi jeexee soirée bi jeex yéen a bokk ndey ak baay man damay xëccal Wally Faye buñ paree Sidi Diop sama frère la tase nañ Almadi mu taxaw gaare otoom fii nangam naam bu liggéey jotee damay xëccal Wally euh, kaw mais wax ju ñaaw ji moo amul en tout li ma ci mën a wax pour mu leer Sidi Diop li mu def dama ko rafetlu yàlla gërëm na ko yonent bi gërëm na ko muy ku jaale ku génn àdduna sa moroomu julli la nga ñëw jaale ci ko man amul lenn moo ko ci balaamee Matar encore noonu keneen ak keneen yaa sax Matar ak Euh, ak Sidi euh, Diop mais képp ku fa ñëw rek am nga yool incha allah bul déglu gaa li ñuy wax li tax nga def ko waaye taxul nga def ko kenn taxul nga def ko muy yàlla suñu borom moo tax nga def ko parce que yàlla moo ko digle yàlla nee na waroo sax mere sa moroomu jullit trois jours nuyoowu leen. kon xam nga yàllaa ko wax. kon dèjà ku génn àdduna jullit comme yow war nga am nga droit jaale ji ko. loolu amul lenn lu ma ci blanc si Diop di ko rafetlu di kontaan ci moom yal na ko yàlla fay yool bi moom wax boobu dama ko ñaawlu wax bu ñaaw warul génn ci gémmiñ même soo ko xamoon sax naj ko te ko sa kon bañ ko wax parce que wax bu ñaaw boo ko génnee rek ñeneen ñëpp dañ ci blâmer di wax lu nekk man ñi ko wax noonu ay dëmm rey la jaale la vraiment rafetlu ko benn yoon ci kàddu ak ko mën di wax nag amul leen lu parce que wax ju ñaaw man wax ju ñaaw du ma ko rafetlu jëf ju ñaaw du ma ko rafetlu mhm. vraiment dañoo juum trop parce que waruñ koon wax parce que day andi beneen polémique mhm. te Wally vraiment doxewul noonu aussi tam quoi wax bu ñaaw bëgg ko comprendre nga ku ko mën di wax itam peut-être juumte la parce que njuum du yàq du ñàkk parce que ñu bien sûr maa ngi toog maa vraiment muy lu rafet Sidi Matar fekkuma fa mhm. mais Sidi Diop fa la ma fekk ak ñoom Magor ak ñoom Demba vraiment ak ñoom Awa Ama ñoom ñëpp fa lañ ma fekk ba seen jaal jeex ñu saafante nuyu muy lu rafet mhm. ñu jël fa kàddu yoo xam ne ay kilifa ko jël ay baara imaama nit ku baax koo xam ne dafa jàppale Wally Seck ci li nga xam ne ba dara dul dara comprendre nga encore encadré ko ci li nga xam ne moo di dese bi jël ay kàddu yu rafet teg ko ci Sidi Diop Wally sa mag la sa lii la ñëpp kontaan ci kon tey kenn warul génnaat di wax naka su dul noonu gars yi nañuy bàyyi yenn yi soobis soobis la te ñun instant yi pareguñ pour soobis pareguñ dara dañoo suñu yaay ji lañ denc war ko ñaanal mm. saa ñu xëyee ñu ngi saa ñu xëyee nag fii ba 40 jours dañ koy wàccee ay kaamil. chaque jour saa ñu xëyee ci kattan yàlla dañ koy wàcceel ay kaamil loolu la am mama jaaga amul leneen lu may wàcceel kaamil. soxlawul sax ñu koy reyal ay nag ak ay affaire yooyu moom mama jaaga kaamil la bëggoon ak ñu koy defal social ñi néew ci doole. loolu la bëgg bëggul ay mbumbaay bëggul rumbaay bëggul leneen li mu bëgg mooy wàcce kaamil dem ñi nga xam ne ñoo ñàkk yoruñu wala ñi nga xam ne ñoo feebar ci hôpital yi tëdd fa ñu jox leen liñ li ñu fajoo mama jaaga loolu liggéey loolu la ñuy liggéey ci moom mais pas ay wax yu ndaw ak wax yu sew bëgguñu ko voilà. dëgg la am na solo tey Wally eh, ñu bëri ñu ngi naan dafa war a pose carrière am ba ci kanam ndax li fi jot a fi jot a jàll comme dese yi maanaam macha allah yi nga xamante ni moom moo tegloo tey loolu lan nga lan nga ci wax sénégalais yi ngi naan Wally dafa war a pause carrière ba ci kanam. pause carrière ay waay samba bu doon ku sa waajur génn àdduna nga pause sa carrière àdduna dara dox. Mhm. waaw man mii di wax ak yow kon ma pause sama carrière bàyyi lépp sama ñaar waajur génn àdduna. keneen a keneen le président Macky keneen ak keneen exemple ma tudd turam ñëpp seen waajur génn nañ àdduna est que dañoo pose seen carrière est ce que dañoo tëj seen société Wally Seck société yor di dundal ay njaboot waxuma moom li muy dunde moom li mu am yàlla teral na ko mën na toog xool nu mu koy gérer dund ci ak ay njabootam mm-hmm. mais ñeneen ñi nekk ci ginnaawam ñoo xam ne ay centaine de personnes la mu leen dundal ci li muy def yor société bu toll nii yor ay cent personnes yu seen ginnaaw di ko dundal pourquoi muy muy muy bàyyi woy la vie kon ne yàlla li mu wax mooy yàlla moo ko wax nee na nit bu génnee àdduna moo xam ku mën doon sa waajur sa lépp li ma li ma digle mooy sang ko jullee ko jébbal ma ko man yàlla suñu borom ma jébbal ko Seydina Muhammad mu yóbbu ko ajana si nga ñaanal ko wàccal ko ay kaamil nga la vie continue loolu la yàlla wax n'est-ce pas mm-hmm. pourquoi nag Wally Seck di bàyyi woy pourquoi muy bàyyi woy mm-hmm. bu bàyyi woy ñi ci ginnaawam wala lu muy ñaanalati Mama wala lu mu yore njaboot nga xam ne moom maman jaaga moom la ko bàyyi ak papa Thione gars yi nañ bàyyi seen xel yi ñuy fowee lu tax pourquoi ñu ne Wally Seck ñaata nit la fi seen waa yu génn àdduna waxuñu leen nañ bàyyi seen seen seen liggéey wala nañ pose seen seen nañ tëj seen entreprise ña fay liggéey nag Wally Seck day woyaat incha allah ci kattanu bégalaat askan bi ci kattanu yàlla ni ko doon defee la vie continue ñaata artiste la fi seen yaay génn àdduna ñaata euh, patron de presse wala ñaata en fait ñoo xam ne ay société yu mag la yor seen waa kër seen waajur gën a àdduna est-ce que tëj nañ société bi dem todd seen kër yàlla wax ko de sama gars nañ bàyyi xel bi ñuy seen xel li ñuy fooyee waal nag mm-hmm. moom la yot bi dal moom maanaam lu mu laal moo gën lu mu laalul man maa ngi doog dégg nit yaayam gaañ waajuram ñu ne ko nañ bàyyi liggéeyam ci wàll laa ko mos a déggee waaye nag nangu na xam na ne yet bee ko dal. mais pas bàyyi mais pause ci kanam en fait. non loolu kay jarul wax pause kay xam nga ne ñoom ñi naan pause xam nga ne ñoom dañoo gàtt xel sa yaay kay bu génnee àdduna xam nga ne kay di nga xam nga sa yaay génne àdduna kay di nga ba ñaanal ko pare 40 jours yu mot doon kon sa liggéey kon après 40 jours mën nañ ko xaaraat non déggal Wally Seck daal pour soxna si incha allah kañ lay doon 40 jours xaw ma 1 mois xaw ma mois mais ci kattanu yàlla day day commencé waat liggéeyam wooy ci kattanu yàlla a defal du bàyyi wooy moo tax ñu xaar rek du bàyyi wooy moo tax ñu koy defal dara mhm. mama jaaga li ñu ko a yàlla Wally xam na ko njaboot gi xam nañ ko te niñ ko nañ ko def te commencé nañ ko def muy lan lim gënoon a bëgg képp koo xam ne am nga euh, amoo loo dundee fa Mama Diaga doon dem di fa def loolu Wally Seck dina ko def ak ay njabootam aussi saa ñu xëyee nañ ko wàcceel kaamil ci kattan yàlla parce que am na ñoo xam ne spécial ñoo doon wàcceel Mama Diaga ay kaamil ci kattan yàlla dinañ ko def incha allah saa suñu xëyee wàcceel ko kaamil te loolu yaakaar naa yomb na yàlla moo gën a yomb yaakaar na ci kattan yàlla te loolu moo moo koy fekkee ci biir bàmmeelam parce que ñëpp ñi yeewoo fii la ñuy yeewoo kenn ku ne di xaar sa ñaan ci sa ci sa doom moo tax waajur bu nekk day ñaan yàlla suñu borom euh, génn la àdduna bàyyi fi sa doom ci kaw suuf mu lay ñaanal parce que waajur bu nekk boo xëyee dañ sa doom sa ñaan a ngi nii ni ngay récupérer sa ñaan kenn ku ne waajur yëpp dañuy rang di jël seen ñaan kon mama jaaga noonu la jëlee ñaanam sama yaay booy keneen ak keneen kon ñaan moom rek moo am solo ci waajur du leneen boo reyoon fii ay nag ay milliards nag sax jox ko ko amul sens wàccal ko ay kaamil ñaanal ko suñu borom dog yi nga xam ne moom moom la soxla ci biir bàmmeelam kese moo am solo te am na solo wax ci nga xamante ne rek wax ko ko waaye ñu li nga xamante tamit actualité la ndax gis nañ fan yi euh, TikTok bi li nga xamante ne noonu la euh, demee dinañ ñëw ci influenceurs yi waaye nag balaa ñoo ñëw ci loolu dañuy ñëw ci ki nga xam ne moom mooy Jëf Jël nekk fële nga xam ne moom mooy États-Unis temps gis nañ ko nag. lu mel ni TikTok bi lool lool lool lool yàq ki nga xamante ni moom mooy euh, Lamine Nar lu mel ni xeme te loolu idali ñaawlu ko ñaawlu ko ba fu ñaawlu yem mooy li ma wax sànq début wax bi nee bàyyi wax lu ñaaw Sénégal nañ bàyyi gis lu ñaaw di ko di ko wax lu ñaaw mënul ñàkk ci àdduna mm-hmm. te ay problème mënul ñàkk ci àdduna mais nit ki li gën a bon euh, du mën a TikTokeur yëpp lay wax mais ñenn ñu bari ñoo yàq ñoo bëgg yàq influenceur xale yu ndaw yi mm. influenceur dëgg dëgg dëgg dëgg dafa jafe Sénégal instant yi amu fi influenceur da ngay influenceur loo xam ne instant yi ëllëg ndaw ñi dañ la ci roy ci lu baax mm-hmm. ngay influenceur lu baax mais boo demee bay ubbi sa TikTok compte TikTok pour nga toog ñu fay la nga yàq nit ki ci weccat loolu yaakaar naa yaa ngi yàq askan yaa ngi yàq suñu jarbaat yaa ngi yàq suñuy doom yi ñëw suba ëllëg te nag euh, mbër mu yàq moom nga wax mbër mu yàqu la parce que mbër mu yàq moo tax muy def loolu comprendre nga nit ki ak nu mu mën demee man gëw ma ne Marina yooyu na ko 100 francs bi gën a ndaw man gëw ma ko sama gëm daa wax man ma wax comprendre nga. Mhm. mais li may wax toujours rek comprendre nga li mu def dama ko ñaawlu te loolu nekkuloon place am moom moom mu ne Serigne Touba la yaakaar Ahmadou Bamba borom jaam ñi mu ne mhm. Baye Fall la mhm. barke maam Cheikh Fall gënu ma nekk Baye Fall moom mu ne moom Baye Fall la warul mën a yàq doomu aadama bu ko yoraloon ay milliards ci kaw suuf pour man parce que Serigne Touba ko loolu Cheikh Ibrahima Fall jàngalu ko loolu comprendre kon te moom mu ne jaaroon daara ja loolu du woon cëram moom barke alxuraan karim ku ko ci ànd ak moom. waxoo dëgg te ku ànd ak moom ci loolu noonu doo nitu dëgg nitu dëgg dëgg dëgg da nga koy wax dëgg te yàlla tax moom dama ko dal 100 pour cent 200 pour cent moom comprendre nga loolu du woon cëram moom barke maam Cheikh Fall te gëw ma ne maa ngi naa ko xaalis parce que 2021 la wax maa ngi naa yoon la ko xaalis ba 2021 ba 2024 maari naar nekk États-Unis ak yow nekk ci rii yor ay dollar di ko maye ñëpp di ko filmer nga nekk fa moom feyeku woo ko nga nekk fa ak moom feyeku woo ko booy jógee ko rek yaa mu ñëw jàppale denc la ay costume dama ko gis ah. man ñu envoyé ko ay vidéo maa ngi naan boobu gis xamaguma ko mais maa ngi dégg ay nouvelle ñu koy def muy def lu baax nga nekk moom biir États-Unis feyeeku woo ko defoo dara nga nag ba mu takk ki nga xam ne mooy Amina du suñu jigéen du suñu lépp. voilà foofu sax laa bëgg a dugal sama question yu bëri nee nañ du Malick Nall mooy problème bi mais Amina Poté bi mu takk moom mooy problème parce que ñenn sénégalais sax boo gisee commentaire ñu ngi naan Amina amul sens su jëkkër tey connaissant Malick Nall tey lan nga ñu mën a wax ci moom. foofu laa lay wax nii foofu laa bëggoon ñëw ma la. Mhm. li mu def noonu moo tax may la depuis 2001 ba léegi waxul maay naa dara maay naa ñëw na fi Sénégal demaat doog takk Amina wax ko dara pourtant première voyage bu ñëwee Sénégal gis na muy baat rek Wally gis na muy def lu nekk di dem ci yi lan moo tax boobu léegi génn vidéo wax nëg ba Amina Poté maay naar takk ko mu génn di yàq dellu Malick Naar di génne audio ba pare boolewaat ci Amina génne audio yoo xam ne lu ñaaw la tey day xool moom bu ko defoon jigéenam tey ku mu bokkal ndey ak baay wala jigéenam na lay demee Amina di jigéen di sëykat est-ce que ñu limal la sa ay ay sëy bu ñu limaloon di sëy taxul nga nekk jigéen ju bon jigéen ju bon du loolu mën nga ñàkk sëy sax amoo benn sëy te nga bon Amina man mënuma ma ko mënu ma ko wax jigéen ju bon la jigéen ju baax la yàlla moo ko mayul sensu sëy comprendre nga mais tey nan la ko may naa takke ñuy wax wax ju ñaaw ji ci moom te muy jur ay doom ëllëg te yow nga ne yow Baay Faal nga yow nga ne Sëñ Tuubaa nga yaakaar Cheikh Faal nga yaakaar di woowee sa bopp xaw ma nan ah jëf jëf jël ni mu ni mu garaawee loolu nga xam ne sëñ Tuubaa moo ko defoon ak diine moom Cheikh Fall comprendre nga nga koy wax pare di génne ay làmmiñ ñaaw ba pare di encore di jël euh, ay audio di vilipande koo xam ne jigéen la yow nga xam ne jigéen moo la jur yow nga ne yow sëñ Tuubaa nga gëm nga ne yow bëgg nga sa yaay nga ne yow bëgg nga sa sœur non gëwuma ko ak nu ma demee àllu na jaru ko te maay naar bu ko yoroon àllu àllu lu ci nekk ci biir du nii la koy defee na yem ci maay naar mais bu mu dem di classe Amina Poté loo xam ne moom yoonam nekku ci comprendre nga te ba pare tudd ci ñeneen ba pare tudd ci kuñ naan mbàkke mbàkke moom moo ko wax. Mm-hmm. comprendre nga ak ñeneen ñi ñeneen ba woo ci sëñ Bada di ko wax yi ko wax sëñ Bada wax na ko mu leer comprendre nga. Mm-hmm. kon moom du ko baax pour muy leer ah. mm-hmm. du ko baax bu leen dafa juum mu génnaat def sotti na juum naa wala lii moom moo taxoon dugg mais moom gëw ma ne maay naa yoral na ko xaalis parce que li mu wax yëpp bu gënoon a maay naa yoral xaalis yem ci rek traawul kon kenn du ci mais yàq mu yàq jéem a yàq Amina Poté mënu ko yàq tey jii euh, maanaam sëy bi la bëgg a tas. barke maam Cheikh Fall sëy bi mënu koo tas yàlla moo ko moo tas bu ko yàlla moo tasee nag mhm. bu buñ jàpp ne sëy moom wax ji moo ko tas nañ jàpp ne yàlla moo ko tas mais waxam ji bon ji tasu ko barke alxuraani karim te ku baax du wax lii sëyu Malick Nar ak Amina Poté mënuñ ci dara su naree kunne day dem su naree day tas ñaan yàlla ci kattan yàlla mu continuer ci kattan yàlla mais en tout cas nit ku koo xam ne barke alxuraan kenn nawloo ko parce que man kuy wax lu baax du ma nawloo mhm. bu dee dafa juum nag nag génn def sorte ne dafa juum mais gëw ma ne moom nit ku baax la parce que nit ku baax du def lii gëw ma ne itam taalib sëñ Tuubaa la mën leen tudd turu sëñ Tuubaa mën leen tudde sëriñ Saaliw te doo yor ay jikkoom parce que jikko non damay wax lu leer mm-hmm. man idal du ma wax lu ñaaw ci nit di vilipender doomu aadama te pourtant li ma xam ak bari mais boo nee sëñ Tuubaa la tuddee tudde sëñ Bàmba sëriñ Saaliw borom tur bu baax wala Seydina Muhammad mm-hmm. dañ ne la boo mënul roy ci moom juróom-ñaari jikkoom sax royal ci moom quelque mais jikko bii de du jikko sëñ Tuubaa jikko bii du jikko maam Cheikh Fall du jikko ko xam ne Baye faal pire la Baye Fall akkan dafa jafe murit akkan murit saadix dafa jafe murit saadix du génne gémmiñam ci lu bon di ko jëme ci moroomu doomu aadamaam te yàlla sàkk ko yàlla defar doomu aadama fa koy defar fekke woo ngay da nga ñëw pour toj ko sama gars yi nañ bàyyi li ñuy def yàqante bi dafa bëri ci dëkk bi yàlla da lay avancé loo may la tey bintu rasool yàlla def na ko ci internet bi macha allah ñëwuñ si di njëkk nekk fi euh, journaliste boo xam ne macha allah moom mujj ñëw mais yàlla may na ko loo xam ne may ko kenn te ku nekk xam ne macha allah da ngay toj dëkk bi nañ ko wax te de man ku man ku man damaa ñeme maanaam ku yàlla jiital dama lay wax yaa fi nekk je comprends nga comme ni ma ne Wally Seck mooy le centre du peuple tey moo fi nekk ba ñëpp xam ne idéalkat Wally Seck lay xeexal parce que moom la fi yàlla teg tey Malick Naar tey yàlla andi na ko mu am euh, def social di def lu baax ci réew mi nga ñëw mu takk Amina Poté nga ñëw ne da nga koy yàq ci ay seconde wala da nga koy yàq ci ay minutes c'est pas vrai du gars yi nañ bàyyi li ñuy def nañ bàyyi seen xel mi ñuy fowee comprends nga te ñi leen ci boole ñi leen jàppale chaque jour mooy lan tiktokeur yenn yi du mën a ñëpp nag parce que amuñu métier compte lañuy ubbi compte bi am doole dañuy toog seen nekk taal seen ring ñu fay leen benn cent mille deux cent mille ñu yàq nit te loolu yaakaar naa yàq nit ci àdduna nii nañ xool ëllëg yamal xayaam mhm. bu ñu demee fële duñu fa yàlla duñu fa taardeel sama diggante yàlla lu nekk mooy yàlla mhm. def mais man ma tooñ Binta Rasool su ma àggee yamal xëyam yàlla danaa ma taxawal ne Binta bu foog mu ñëw ba pare ma atale ñaar gars yi leen sóoraale loolu ba pare nit ak nit dafa garaaw te ñu ngi chaque jour ñu xëy tooñ nit ak nit am na tooñ yoo xam ne kenn mënu ko jégal suñu borom te nañ bañ a rëy ku tooñ nga taxaw ne damaa tooñ jégalu yàlla suñu borom loolu la wax gars yi nañ bàyyi seen xel yi ñuy foyee. Mm-hmm. am na solo mais tontu bi nga xam ne Malick tontu na ko Malick naa tontu na ko bañ ci dégg ay saaga nday est woon ñàkk. damaa selon toi Malick Malick dafa juum man Malick woowu ma ko de dégguma ko téléphone woowuma ma ko Amina téléphone dégg Amina Poté déggu ma ko téléphone woowu ma ko mais am na ku sës ci Malick Naar dama ko message dama ko woo ne ko carrément Malick soo ko mënee jot nee ko lii du cëram man dëgg rek laa fi àndal man dë eh man Ida ngay waxal de dëgg rek ma ne ko Malick lii du cëram parce que kenn ku nekk xamee ne ko calme kenn ku xamee lu baax kon kii bu mu ko yëngal ba tax muy def ay audio ñu koy def tas ci ëllëg day am ay njaboot te moom ñëpp jàpp nañ ko kilifa la kon warul audio sax warul sax woo kii téléphone di ko expliqué na bàyyi ba ñibbi moom jëf ñu war a wax nañ wax moom bu eggee jëf li muy jëf mais du yoon muy audio bay saaga ndey Malick foofu dama ko blâmer du yoon parce que kilifa warul defee noonu kilifa warul bon ñu wax la benn affaire rek nga tàng réagir ci tàng-tàng bi da nga naan tekk-tekk woon la yoon man Malick audio boobu mu def wala appel boobu mu def ak euh, waa ji accord ma ci benn yoon dafay juum carrément yaakaar naa audio boobu ci la yam warutoon def loolu na bàyyi ba àgg bu eggee réglé ko boppam bu dee moo yoral waa xaalis mu fay ko boo yorul ko mu faj ko ak boppam parce que affaire daal luus na parce que waa ji woo na ko affaire yu appel yo tëjoon la fi waa ji ne ko tëjoon nga ma fii la ma fekkoon ton dafa nekk yoo xam ne dafa doy waar xamante nañ mais li ma ci ñaawlu mooy wax ju ñaaw ji ci internet bi vilipande laal ci suñu jigéen Amina Poté Amina sequñu lenn ma ak moom mosuñoo déggan téléphone sequñu lan lan lay demee ak nan la koy dundee loolu moom ma metti tey amoon loo koy wax lan lay doon. ci kan Amina Poté parce que tamit neexul nga dugg ci say même pas euh, euh, euh, deux mois wala trois mois nga ciy dégg sa jëkkër ñu koy waxal waxi ñaaw neexul ci jigéen tey amoon lenn rek loo koy dénk sa sër rek nga daal di tàggu. Amina ñaari point laa koy dénk. Mhm. mu muñ comme maam Diarra ni mu doon muñu keneen ak keneen parce que booy roy da ngay roy ci ñooñu noonu. Mhm. dégg nañ lu nekk muñ la lu nekk seen sëy moo tax ñu andi fi Sëñ Tuubaa andi fi moom Alaaji Maalik andi fi keneen ak keneen ñooñu ngay roy donte mënoo am mel ñoom mais da ngay jéem a roy ci ñoom lu la metti dugal sa néeg nga tëju jooy ba yàlla ma la jàmm ba sa néeg taa nga foom ba mu rongoñ nga toogaat mm-hmm. te xam ne bul gën di tontu ci télé bi bul gën di tontu ci TFM defal pat sa jëkkër bëgg na la bëgg nga ko wax yu ñaaw mënul ñàkk ci Sénégal mm-hmm. chaque jur mu am fi comprendre nga fukki ci sëyam bañ di wax ak ma sàmb bañ di wax ak ma demba parce que fii kat gars yi dañuy ñëw pare yóbbu la quoi conseil daal ma ko conseil mooy ne muñ bu moog borom këram lu ñu lu ñu lu ñu luy seq na yem diggante ñoom ñaar voilà. voilà euh, ñoo ko te Idali lañ dalaloon te yaakaar naa ni tamit waxtaan bi euh, am na lool a été un plaisir ñu bàyyi la rek nga tàggu ñuy seetaan ba beneen incha allah kontaan nañ trop ci disponibilité bi. waaw di sant yàlla baax te julli ci yonent bi comme ni nga ko waxee saa rek ñaanal suñu mama jaaga. Euh, yàlla xare ko àjjana saa su ne suñu xëyee mun ñu ko euh, di di fàtte benn yoon saa ñu xëyee suñu xel day dem ci moom ak bépp bépp bépp jaamu yàlla bu nekk ci biir suuf rek incha allah rawat na sama yaay sama papa samay mag sama ñëpp a ngi ci biir suuf tey mama jaaga fekk leen yàlla na yàlla xare leen àjjana ci barke Seydina Muhammad di wax suñu frère Wally Ballago Seck li ko dal tu lu bees ñëpp la dal yaakaar nañu dal bëri na mais moom la beesal tey dañ koy wax rek moso di ko wax yàlla may ko xolu muñ ak ay rakam ci barke Seydina Mohamed te ma dénk ko yàlla suñu borom dénk ko Seydina Mohamed dénk ko alxuraani karim ñett yi rek a fi nekk mu yàlla Seydina Mouhamed alxuraan karim di kontaan ci yow itam Binta Rasoul vraiment sa liggéey rafet na ñu koy rafetlu vraiment ba ma wooyee naru moon def interview sax parce que fan yëpp maa génn mais dama leen ko dama la koy may parce que jàkkaarloo yow dina ma neex parce que xam naa ne li ngay def mën nga ko te maîtriser nga ko bon loolu daf may yokk dara quoi vraiment di la ñaanal jàmm euh, seen liggéey bi macha allah yàlla def ci jàmm ci barke Seydina